Thank you. donc salam alaikum, salam alaikum. ma ngi nuyu ñep ñi nga xamne ñoo sakku di sét di sét télévision VF TV la télévision future la, télévision spécialement dédiée aux femmes comme la si bien dit hein, la queen elle est superbe aujourd'hui c'est-à-dire, siga est belle est nice donc yaa ngi si 100 pour cent Saint-Valentin bi sa rouge baax na en tout cas ah kuy rouge na la laaj. Mm. Mm-hmm. man tamit séeréer bu naaj waaw séeréer bu jantal quoi séeréer bu jantal mu ngi nii sax dafa war a dafa war a wàcc quoi ñu waxoon gaa ni gaa yi quoi tey day wàcc. <laughs> waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di kontaan di ñaanal ñëpp jàmm di sama xale yi di leen ñaanal fi ñu bëgg àgg yal nañ fa àgg ci kàttanu yàlla di nuyu sama sëriñ bu baax bi fay àll njéemi paar moom mooma mooma jàppale dooleel ma mooy Ousmane Faye bëgg ko lool nag di wax ni kontaan naa ci yéen daal barke Serigne Fall. xanaa kontaan ci waa di leen ñaanal nag ànd bi yàgg te sax barke Serigne Fallou Say I nga juddu kase la borom ko suukar yi la yàlla def mbëggeel yaay mbëggeel ci mbëggeel léegi nii la Iya pergi cegah sama aja. Ini capek dua minggu kontaan aussi si clavier bi nekk si ginnaaw ak gars yi yooyu affaire sabari ñu ngi tëglu nice xamuñu rek musique moom ci lañ moom la ñuy dund dèjà te mère bi voix dèjà c'est autre macha allah ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëf bu baax plateau bi nag am na nu mu demee quoi mais xoolal kon damay jóg quoi ah kon damay jóg quoi yëngatu quoi ah mais comme ni mu ko waxee te dañ fi ñëw juste comme ni nga ko waxee ni nga sañcee nii pour waxtaan ci li nga xam ne xëy na moom mooy lié ñu bëri te loolu bu ñu ko waxee rek muy le moo amul. mu nekk entre man ak yow wala mu nekk yow and yaag ñaag natuwaa wala yaag maire bi donc lépp loo gis si àddina rek déjà lii njëkk mooy mbëggeel quoi si diggante bi su loolu amul rek dara du avancé donc Saint-Valentin nag comme ñi ko gars yi xamee c'est une coutume ba nga xam ne naan c'est la fête des amoureux amoureux nag mën na bañ a nekk yaag sa copine mën na bañ a nekk sa jabar mais mën na nekk sa yaay wala yaag sa xarit donc loolu yëpp muy débat ba nga xam ne xëy na c'est un débat ouvert peut-être mën ci wax quoi moom ko bàyyi mu yoole ma fii quoi ah déjà sama cadre mu ngi ree aw boilo mooy loolu en tout cas mbëggeel ak liñ ci xam xëy na peut-être nekkuñ mag trop trop trop mais am na lu ndaw luñ ci xam la nga xam ne nit moom dama jàpp ne boo bëggee c'est autre chose quoi comme ni ma ko faral di waxee daf lay gënal sa bopp sax parce que ki nga xam ne danga ko bëgg amul bu mu mënul nekk parfois comme ni ma ko mën a jàppe mooy daf lay gënal sa bopp mu sa yaay boo ko bëggee daf lay gënal sa bopp sa xarit boo ko bëggee daf lay gënal sa bopp wax waxatuma la nag sa jabar wala sa copine donc en matière d'amour xëy na dund nañ ci lu bëri la nga xam ne buñ toog di ko détaillé fii <laughs> yow soo di ci jóg ah, Mm-hmm. kon loolu am na solo. waaw mm-hmm. ah, nga teg ko sa baaraam yi ndax nee naa ne plateau bi tey dina ci ñëw benn yoon. Mm-hmm. ndax sama xarit sama doomu loolu ak ah, kër bu rafet la ah, ci sama dilaa mu ngi ciy toog sama wet ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay bu baax sama kër bu ñu macha allah lépp yi jot alors yàgg na. tey nag ñu am am importance parce que boo gisee stage boobu ñu ngi doon nekk di diggante ak diggante. wala sa soxna ñu ngi nekk di diggante ak yow ak waaye ñu war sa ay sëriñ wala sa sëriñ sax. parce que yeneen ak yeneen. te comme que ay diggante yooyu ñu def mooy bëgg na suñu laaj ko la dana ko war di jot ba ko kii di waaj a ñëw. xanaa day daal di ñëw. ak am na solo Anacim mu ne bu dul tey bu yomb ku dëggantaan war sa yomb. li ci mbëggeel Najda tey boo dundoon ni nga dund ci mbëggeel tey war na koo liggéey lan la. loolu Kaara. àjja Kaara expliqué. moom mbëggeel flash car. flash car. te flash car VF TV. flash xamu ne flash car. VF TV. bon li ma dund ci mbëggeel neex na parce que jot naa see dund tuuti rek la nga xamante ne nii. day tax nga changer ay idées day tax nga voyager jëlee beneen yu ci yeneen univers daal parce que mu gën a jógee surtout maa nga bëgg koo xamante ni nga bëgg respecté la surtout respecté la ndax respecté mooy bëgg ak confiance nga xamante ni sa partenaire pour mu ci nekk sa xel dafay dal ndax confiance baa la ko ak li nga xamante ni mooy yoon lu daal également bëgg mbëggeel bi ma jot a dund beneen. am nga ñaar kon nga ñaar. waaw. man ah. si yoonal. waaw maa <laughs> ngi

mooy àdduna bi. Mhm. àdduna bi ñu bëggante wu suñu xoolal tey ngeen mën a def boo xoolee ak li gis ñu jiw dajale ci bañ koo du ngeen mën a def du ngeen mën a jubóo ngeen bëggee su amee rek macha allah lépp dafay leer waaw. ci lu ngeen mënti dugg rek seen àdduna dafay yomb a amul bu ma la jéggee li nga wax rek parce que duñu ñu yaal duñu ñu joxal duñu ñu mën leen ñu ne ndax àdduna kenn mënu koo téye kon bëggee duñu ñu téye naturel la nag yàlla moo koy def duñuy joxal duñu ñuy laaj tamit kon bëggee mënu ñoo xam fu mu nekk kenn mu taxaw fu mu nekk ah, lu ñu santeer la quoi lu ñu yëg la quoi effectivement wax na dëgg parce que amul du loo du benn objet booy laal du loo xam ne carrément da nga koy mën a yow toucher mais day nekk la nga xam ne da nga koy sentir mais day nekk benn genre fluide bi nekk si yow boo xam ne chaque instant day chose man moom ni ma ko jàppee rek c'est autre chose quoi la mooy c'est autre ah, fekk la ngay liggéey nga tëb a tëb mu yëngatu nga jël sa téléphone woote wala envoyé message xool nu mu demee ça dépend. bu yëngoo am na bu bu yëngoo kay foog nga réagir loolu yoon. Hmm. Ah, waaw li ma xam ci mbëggeel de mooy nit ki soo bëgg soo ko bëggee doo ko bañal dara mbëggeel mooy lépp koo bëgg su amee nga muñ su ñàkkee nga muñ ndax doo xool dara ci moom mbëggeel moom mooy lépp su mbëggeel amee rek lépp neex ki nga bëgg moom mu jaral lu ne nga bëgganteeg mu bëgg la nga bëgg ko yàlla def seen diggante soo ko bëggee rekk bëgg léppam waaw mbëggeel daal laa ci xam mbëggeel daal mbëggeel daal boo bëggee nit ki Euh, nit ki soo ko bëggee da nga koy bëgg sa yàlla sax euh, doo ko bëgg ngir xaalis doo ko bëgg ngir xale yi jamonoy tey na def xaalis. mbëggeelu léegi xale yi xam nga danga daan dem waaw waaye loolu amatul léegi nit ki danga koy bëgg te yàlla tax. soo ko bëggee doo ko bañal dara. waaye euh, euh, ah da xool sa waxi waajur rek ndax waajur yi bu njëkk dañ la naan kay muuru sëy maye nañ la nga topp sa ndigalu waajur waaye léegi léegi léegi xale yi loolu amatu ci dangay gis koo bëgg te yàlla tax nga sëy moom ndax bëgg bu amee. rek mbëggeel daal mooy lépp waaw soo xësee bëgg nit ki moom bañaloo ko dara su amee nga muñ su ñàkkee nga muñ. waaw c'est c'est un peu kii parce que loolu dañ ko doon dégg ñu koy wax ci maam yu njëkk yi déjà maa ngi béggee de passage sama benn tonton waaw donc moom aussi dund na lu mel noonu xëy xëy rek nekk université bi jàng dégg moom ki ñu ko may sax moo ko woo téléphone na ko may nañ ma la soxna donc fekk moom boobu mu ngi organisé wu ak keneen mais effectivement comme ni mu wax dafa topp ndigal waajuram ba mu jëm see kooku foofu aussi mën nañ ci def benn bu ndaw muy que ne amul aussi na nekk miinante parce que nit ki mën nga ko bañ a bëgg parce que xamuloo ko mais boo demee xëy na ba nga jege ko ba ngeen dund benn instant xëy na foofu mën a dem ba comme ni mu ko waxee rek ndigal bi nga doxee xëy na peut-être ñëw nga pour jaamu yàlla parce que say au temps c'était pour jaamu yàlla quoi ba léegi sax pour jaamu yàlla la mais xëy am na yenn détails doo ci lu ci xale jigéen yi ñoom ñuy dugal mais boobu ak léegi c'est différent nit ki nag boo moom fur et boo gisul da lay manqué yow boo gisul da lay manqué boobaa boobu amul day ñëw foofu noonu xëy na foofu mën nañu ko comprendre mais nag comme ñoom dañ say jee ak léegi c'est différent parce que yow tey da bëgg préparer sa

après boobu ngeen di retrouvé wu gis ne carrément sentiment yi commencé ñëw après parce que yéen a ngi frotté di ànd ensemble bu baax yéen données yi mën na dugg seen diggante après ngeen mën na seen waaw d'une part je peux être d'accord si loolu loolu mën naa ci ànd ànd d'une part mais pas à 100 pour cent kon day nangu. am ah di profité waaye di mais mais mais mais mais man laa laa laa man maa lay laaj man maay man maay maay créer débat man maay créer débat parce que yow nee nga minante amut mais da gis tey par exemple tey. ngay nuyoo ne da ngaa bëgg sa yaay lan moo tax say waajur euh, seet kenn ba mu doy leen ñu dénk la ko nga ne yow loolu doo ko nangu loolu lépp dañ ko war a teg ci ay charte ñu aada Sénégal bi loolu ay aada la léegi bii nga lu mu wax aussi forcément le diine la ko wax sa mais la mais la plupart des filles ñoom ñoo koy organisé mariage arrangé ñoom ñoo koy organisé. da ngay gis benn Skype di génne benn xale bu jëm ba si yaay nga dig fee ñu dem ne may ne ko kebe. te yow day fekk ne yow Skype nga ko xamante ne nga xëy xëy ñu ne may ne ko kebe. c'est intervalle bu gàtt. loolu est-ce que loolu aussi du miinante si diggante parce que loolu. intervalle yooyu un mois lay nekk quoi. baaxoo ñu ta ñaar ñi yàgg dégg ku nekk xam sa jikko moroom ku nekk xam sa ay principe moroom loolu mooy gën avant ñu lay may sànq ba tey yaa ngi wax ci diine yaa ngi wax ci diine est-ce que diine nangu na diggante góor ak jigéen génn comme ni ko waxee génn mooy lan ak génn jëm fan ak lan mooy génn waaw génn ay comme eh, ci Sénégal ay sept ans ay dix ans loolu problem yɔn fa falo, yɔn puissante. Euh, waaw doo xam léppam nag ndax c'est impossible nag euh, nit dafa la mais góor ñi dañ leen soxla non dañ loolu dafa simple gëm sa bopp la wala euh, ñàkk ñàkk sa bopp laa ko mën a tudde xam nga. man personnellement d'accord ma ak ñu koy def mais nag beneen côté dama leen comprendre parce que fekkee ne yéen ñoom jigéen ñoom ñoom matérialiste en fait yéen yéen matérialist cest à nit ko bu ñëwee indi benn kilo tam benn t-shirt am day naan non non tey da ngeen di préférer benn skype bien sapé sol jasner ñëw yor iPhone biir laal caabi oto bii di langal ko ngeen di gën a jox respect en fait ki nga xam ne moom moo ñëw de manière simple de manière modeste si si si yéen donc et eh, bu fekkee ne ku góor ko si bëgg na la bëggee ba nga xam ne yow jaral nga ko mu dem abbu yére woo benn xam nga benn benn benn cheikh na ko almasa jasner bi ma jam ko abbu boil waay ma laa kiis ñëw ne kebax almasa téléphone rocc pisam dugal da koy jaral en fait c'est-à-dire li ñuy wax rek il faut se battre pour son amour il faut nga rey sa bopp pour ki nga bëgg te donc la plupart yéen jigéen yéen a poussé góor ñuy def loolu. Ah. Euh, waaw waaw ça dépend yow daal loo mën a def pour convaincre ki nga nekkal mu bëgg la nga bëgg ko loo mën a def toutes les raisons maanaam toutes les preuves loo mën a def la lépp valable na am en amour tout est possible lépp valable na. <laughs> également suñu parents yi bu fekkee nit ki dafa bëgg ñu xool ban xeet la bokk ndax bëgg naa de man bëgg naa de tànnale ma sama kër nijaay